alhamdulilah ba tey mbokk ñu dolliwaat ci yoonu xaqiqa yoon boo xam ne da ngay wax lu la neex woote woo lu la neex si daraja woote la woo lu la neex di maye àjjana di maye lu la neex te moomoo ko loolu mooy yoonu xaqiqa woote lu la neex buñ la lakk buñ la laajee nga ne xaqiqa la buñ la laajee nga ne baatin la lay bi mooy xaqiqa la mooy baatin woote woo lu la neex waaw waaw firnde bi nag xalaatoo wax yàlla na yoon di bi da nga naan xaqiqa la baatin la te xaqiqa boobu ngay woote yunun di musuñu ko woote woo saxaaba yi musuñu ko woote woo te ñoo ëpp ragal yàlla foofu ëpp la xam-xam loolu mooy yoon xaqiqa ba tey borom jawaaxir fii mi ngi wax wax bu kéemaane waaw na ci kan fóode yi waaw <laughs> amul kenn koo xam ne mën naa dugal mbooleem taalibeem kenn du leen atte léegi ngi dégg wax ji kàng fóode yi xutba zamaan yeeg wali yeeg ñoom ñëpp boo leen boole amul kenn ko am kàttan am daraja dugal mbooleem ay taalibeem àjjana te kenn du leen àtte <laughs> subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi wax ji dara wiru ci lii benn yonent musu wax ba nu yonent moo woote woon dugal ñi ko topp mu àjjana te kenn du amut yonent bi sallallahu alayhi wasallam musu wote wo woo yonent yi musuñu ko wote wo sahaba yi musuñu ko wote wo dara wiru ci moom mooy wootee loolu àjjanam leer bu mu dugal ken àjjana naxaar ba ñu atte ko kon li lu graw la ya mu fofu mu ne wa amilu min az-zunubi ma amilu mu ne nag ak lo lu mëna def ci bakkar wa balaghu min al-ma'asi ma balaghu ak lu mëna def ci bakkar nay naan sàngara nay rey nit nay njaaloo nay lekk riba nay bàyyi julli bàyyi koor ak lu mu mën a def ci baakaar la am solo daal yow ci yoon ba rek ci yoon bi moom moo la garanti ne da lay dugal te kenn du la àtte ak loo mën a def ci baakaar loo mën def ci baakaar garaaw waaw la am solo daal mooy nga bokk ci yoon bi waaw neen loolu yëpp kenn mënu ko ku dul moom dong moom dong mu mun loolu mbokk yi wax ji wax ju dooy waar la mbokk yi wax yi dara wéru ci caaxaan piir la waaw àjjana moomu ko ba koy dugal nit ñi ba xayri xisaab seen yoon boobu gën a foor yoonu islaam gën foor yoonu saxaaba yi yoon boo xam ne junni at lay doog a ñëw lan la am lan la yoon bi am te islaam amu ko waaw ah la yoon bi lii doo ko dégg fenn benn yonent mos sa woote wu ne day dugg day dugal mboolem taal yu àjjana te kenn doon atte amut àjjana yàlla mooy atte jaam dugal ko waaye du nit ko moom <laughs> kii nag di woote woo lii li ci gën mu yéeme nag mu ne ak lu ñu mën a def ci baakaar loolu wàññiwul dara mbokk yi nag lii mooy yoon xaqiqa xaqiqa nag nii la parce que ba nga xam ne tënkul ci alxuraan ak sunna da ngay woote woo lu la neex bu ñu la waxee nga ne baatin la xaqiqa la zawq la kashfu la tolluwaay la ban tolluwaay la yonent bi ndax mën ngaa toll ci dina fa Abu Bakar Omar Ousmane toggul ah waaye mosuñu ko woteew mosuñu ko woteew ah, mën ngaa toll ci dina fa imaam Malik Shafi Ahmad àggut mosuñu wootewoo caaxaan yi kon lii daal safaan la ku bëgg a noppaliku topp yoonu alquran ak sunna